ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu am fi it Serigne Modou astu Mbacké moom it mu bokk ci MODAP MODAP di mouvement euh, doomu daara yu Pastef nuyu nañ la daal sur le plateau Serigne bi. maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. soxna Fatou Abdou Ndiaye ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar di Serigne Modou Mbacké nuyu Serigne euh, Ahmad Bamba Diop ma juum ne Serigne nag nii nga di siyaar bu baax. di siyaar mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan fii ci biir réew mi ak bitim réew. Mhm. jaajëfal nañ la Seydou Bamba Diop analyste politique ñu dalal ko sur le plateau euh, Seydou Bamba ziar na la. Euh, maa ngi lay delloo ziar Fatou Abdou di nuyu téléspectateur yu Sen TV di jiital ci nuyoo bi ñi nga xam ne ñooy topp saa su ne sa émission di 90 minutes chrono. Mhm. di la sant ci invitation bi di nuyu sëñ Modou ak sëñ sëñ Modou yi nii moo day ni ñaa moo day ni <laughs> ak Moussa di ñaan suñu borom def eh, lu ñu fi rek muy njëriñu askan wi mhm. alors Moussa n'ya, wax nga ko muy membre cellule de communication euh, bu mouvement gëm sa bopp Moussa nuyu nañ la daal sur le plateau. merci beaucoup Fatou Abdou may amaat mbégte rek teewaat fii ci plateau bi. 90 mhm. euh, minutes chrono mu nekk plateau bu yànji boo xam ne Sénégal yëpp dañ koy baaxoo di Safo di seetaan di nuy également sunu co euh, Seydou Bambo Diop Astou Mbacké ak euh, Serigne Modou doli vraiment di ziar et à travers vous di ziare sunu le yi notamment al Khalifatou le li tariton Serigne Al Bashir Mbacké di def fait Sénégal débat bi nga xam

Euh, ginnaaw bi nga xam ne euh, li mu leen jox ne yóbbal ngir ñu jox ko Ousmane Sonko euh, boobu ak léegi def na lu toll ci ci ñaari fan fan la situation bi toll aujourd'hui lan lañ ci mën a am comme dernière information. ñu ngi nuyu sëñ Cheikh Thioro ma koy fàtte ci ci bi. Mhm. xam nga tàndaram boobu sëñ bi joxe woon problème bi ma ci jëkkam dama ci wutal ñu bari. Mhm. parce que bu fekkee da nga suivre vidéo bi maanaam Habib Sy bi nekk porte parole bi Yewwi Askan Wi di wax. li muy wax jamono bi muy wax da ngay xam ne am na benn film bu ne ci ginnaaw li muy wax te yëgul ne film boobu am na. maanaam bi muy wax da doon présenté comme si que moom nit maanaam sëñ Mountakha yu am na lu ma yóbbante ci Sonko muy ay wax ak lu war a teg ci loxoom. su ko wóoroon ne jamono bi muy wax loolu yi maanaam ñi ngi koy vidéo ci tàndarma jooji du aajoo kon muy nëbbu léegi sëñ Mountakha wax ak lim ko yób ak lim ko yónni. Hmm. lam ko wax na ñun gisuñ ko ci vidéo bi après. waaye lam koy nu moom gis nañ ko ndax dana woon yéen journaliste yi suñu demee ba ñëw danañ leen wax lam ko wax ak lam ko jox léegi nag avant muy dem bay ñëw xamuñ lam ko wax waaye xam nañ lam ko jox mooy kon vidéo vidéo boobu génn man dama dégg ci yëg ne Habib si moom yëgul ne jamono boobu moom ñu ngi koy filmé ban vidéo la boobu ban vidéo moo génn maa vidéo bi génn mooy mhm. bi ma toogee jàkkaarloog sëñ bi sëñ bi dañaan ci tàndarma bi nii mhm. di ko defaat ci kees gi ba di ko tëjaat damaa jàpp ne comme ñun nii ñu toogee ni ci émission bi nii di waxtaan mhm. image bu fiy génn wala lu fi war a génn do ajowoo man su ma jógee mu wóor ma ne ñëpp a koy gis ma demaat feneen di wax ne maanaam la ma doon waxtaanee ci plateau ba après da moom fi jógee man dina moom su ma ma doon waxtaanee ci plateau ba dem ci benn jotaay boo xam ne ñu ngi seetaan waxtaan waxtaan wi ma ne leen demoon naa ca Faatu Abdu am na lu ma waxtaanee moom mhm. après il faut yónnee ma ci diw faaw ma dem ci wax ko la ma wax ba pare après su ma dikkee la ma wax wala la ma jox ma dikk wax leen ko te fekk man li ma Fatou Abdou wax mi mu ko wax ci plateau bi a leeral. déedéet damaa moom mbir mi maanaam ñun da da da da koo lënt ne vidéo am na. vidéo buy wane ne moom tàndarma ji ñu ko jox am na moom loolu loolu moo ko lënt te ci koy déggee parce que bu fekkoon ne maanaam mbir mi lëntu ko ne maam ñu koy ñu ngi koy moo tax muy wax di lëm ay wax ci. léegi yow loolu da nga ko ñaawlu wala. pour ah, dama ko ñaawlu dama ko ñaawlu ni ma ko ñaawlu rek mooy. Hmm. comme ni nga tàmm gisee rek Sonko bu demee kër sëñ ba am ay vidéo yu génn yoo xam ne dangay da lay wóor lii du luñ préparé du luñ waaj du loo xam ne ki toog sax yëg na ne ñu ngi koy vidéo bokk na ci rek dégg euh, bi laa ñaawlu wala wala acte bu Aziz Habib Sy bi mhm. wala les propos de Habib Sy mhm. non non Habib Sy li wax rafet na waaw li mu wax nga moom ni mu def sax la ndaw li def mhm. la yónnee ci koo ci jox la loo xam ne mën naa am secret la mën naa am ki la yónni bëggut lim la yónni nit ñi yëg la jëkk moom mu di ko yëg moom mi wax mi wax ji concerné moom mbir mi concerné li mooy mooy ni def moom nga xam ne dafa jàpp ne daa war a dem ba gis ak Sonko mm-hmm. daa di wax Sonko li ko sëñ bi wax jox ko ko sëñ bi jox moom loolu mooy li mu jàpp te loolu mooy li yoon maanaam ku ñu yónni moom da ngaa war a la yónni ba pare soo daree bu la waxoon nga xam ne ñoom ñaar la concerné Muawiya ibn Abi Sufyaan ginnaaw ndax ne mën naa di ko wax ndax moom faatu na li fekk mi ngi dund nag moom mënu ma ko wax parce que mën naa mu doon lu koy laal waaye comme faatu na mën naa di ko cest dire mooy secret ci ci ci xaajatul xam maanaam règle xasee faatu maanaam loolu nekkatul secret bu la neexee wax ko bokk na ci rek samul la ñu daggan irwa un nadim nett na ci benn secret boo xam ne benn naar bu ñu wax Abdallah al Gumlay lii moo ko waxoon bi mu bi mu bi mu jigee ziyaare ci Sëñ loolu da ko doon nangu nangu ko waaye daf ne comme faatul dinaa ko bind loolu ku xam bind règle générale la boo xam ne wala ku xam-xam-xam kii wax ak yow lim lay wax maanaam bala cee kenn mën a jot ki ko tax a jóg da ca war a jot ba pare li tax nag ñëpp jot ci na ne tàndarma la ko jox te Ousmane Sonko jotagu ci te Ousmane te ki ñu yónni it muy Habib si moom li mu bëgg moom mooy bala cee bala ko kenn yëg wala kenn da ci jot faaw Ousmane Sonko da ci war d'accord mais non oui. léegi nag li tax kon vidéo bi génn Habib si moom ba xoolee vidéo bi dana xam ne moom lam doon nëbbu doon luñ nëbbu lam yaakaaru ne noonu la demee le fait que vidéo bi génn moom moom ngay ñaawlu bu comprendre. ah vidéo bi ñu doon filmé sëñ bi ci gendarme bi. Mhm. ah Habib si yëgul ne vidéo nañ ko. d'accord sëñ bi yëgul ne vidéo nañ maintenant aujourd'hui yan information yu muju moom ngeen am par rapport ak loolu nga xam ne euh, euh, la. di ndigal waaye di tàndarma bi nga xamante ne eh, sëriñ bi wax na ne nañu ko jox Ousmane Sonko. waaw loolu Habib si ci discours am rek dégg nga mu ne man de sëñ bi moom a yónni kon yéen autorité yi nga xam ne yéen a yor Ousmane Sonko na ci yéen ngeen ubbi bunt yi ndax sëñ bi ndax a yónni ginnaaw ba sax ki la yónni nag ne la ci diw laa la yónni kon dèjà kii maanaam ki nga xam ne maanaam ci moom lañ la yoon ña ka yor maam ña nga xam ne ñoo yor kookee kookee war na ne bala bala kenn mën a gis faaw mu jaar ci ñooña te ñooña kii war a yóbbu yóbbante moom interpellé na leen te ba mu demee moom ñoom gisuñu ko te man xamoon naa ne duñu ko gis. bañ demee gisuñu Ousmane Sonko loolu lañu dégg effectivement. waaw taman xamoon duñ ko gis. ah oui man loolu mu amu ci woon benn problème ne ko gis man waroon na ma naa ñu ne duñ ko gis. parce que li tax ko gis mooy ah, maanaam jëmmi euh, Macky Sall amul dara lu muy may ab sëriñ te fekk xoolul ba intérêt nekk ci. lu muy may ab sëriñ bu ko sëriñ ñaanutoon it ma man man na ko def dégg lu muy xaj ab sëriñ itam day fekk loolu mu doon ak bëggam bokk na ci rek euh, Karim Wade mi amul sëriñ bu taxaw ñaan ko ne ko bàyyi ko amul ba ci El Hadj Abdou Sy Ndorong taxaw ne publiquement ni wax naa ko Macky Sall te ko rek bi mu bëggee mu génn fexe na ba mu génn jaar ko ci ay chefs religieux aussi Khalifa Sall bii amul ku ko ñaanul te ko rek bi mu bëggee mu génn ba génn na ko jaar ci ay chefs religieux même bi mu bëgg jubóog Ablaye Wade loolu bi mu bëgg jubóog Ablaye Wade jaar na ko ci ay chefs religieux ba jubóog moom doxanteeg moom loxo pour nga xam ne man loola man ci loolu laa sukkandiku woon xam ne man xam ne wóor ma ne moom ñoom pour ñu gis ko loolu mënul ne parce que actuellement rank ñi bi Macky Sall am ci Ousmane Sonko loolu xaaru ci sëñ Mountakha xaaru ci ab yonante xaaru ci kenn moom li mu ci bëgg la ci xool waaye xoolu ci lii mooy ndigal li lii mooy lu baax li lii mooy lu bon li li mu ci bëgg la ci xool moom li mu ciy bëgg nag mooy kii moo dox sama diggante ak am troisième mandat kii moo tax sénégalais mënumaa dem fenn dajale menn mbooloo kii moo tax mënumaa yoon fenn mënumaa fanaan fenn maa occasion bu ma am ci humilier ko moom du ma ko du ma ko rate moo tax man ci fii laa sukkandikoon xam ne moom du ko gis man xamoon naa ne du ko gis loolu aw ma ci woon benn sikki saaka du ko gis léegi nag ñu doon se ñu doon wax ni maanaam jëmmi politicien Sénégal ma dafa am benn discours boo xam ne mais xëy na tëjuñu bunt yi définitivement dafa nekk ci noppalu état de santé moom moo tax ñu ñu ñu yëkkati yooyu kàddu bu ñu sukkandikoo déjà euh, ci bu ñu déggee li nga xam ne moom la euh, yeewi askan wax comme Habib waaw man de sama gis-gis ci ci ci jëmmi tàndarma bi man pour man médicament laa ko laa ko jàppe man man médicament laa jàppe tàndarma ndax lu tax ma jàppe ko médicament mooy sëñ bi moo ci ñaan mhm. médicament nag wurta tardé ci ki muy faj dafa war a gaaw dëgg la waruñu waruñoo naan suba ginnaaw suba naa nga wax naa nga médicament dafa war a gaaw gannaaw médicament la nag te moom mi ngi tawat mi ngi ci emprisonnement nekk ci njàqare comme médicament médicament bu mu nekk lu tardé waaye médicament la boo xam ne Macky Sall xam na médicament la moom xam na ko te médicament bobu yéene wu maam yéene wut ki ñi faj mom mu wër ci médicament boobu. Mhm. man loolu la sama gis. alors euh, euh, sëñ sëñ Modou sëñ Modou baara doli euh, aujourd'hui lu bari li ñi reprocher le président de la République.